DSTV ñoo ngi lay ñaan nga aboon nga bës ko la sa notification loolu mooy tax doo mu dugal rek nga mën cee jot leen fàtte aimer partager téléspectateur internet DSTV am nañ mbégte kontaan ñëwati seen émission bi ñu baaxoo def ci département bi di si invité ay responsable politique tey nag ñu am mbégte invité koo xam ne sunu doyen la ci benn côté bi mais nag avant timit tamit politicien la te responsable la ci département bi ñu gën koo xam ci Moussa Diop responsable politique gëm sa bopp ñu ñu am honneur di la invité suñu plateau di la bàyyi nga nuyoog téléspectateur internet DSTV ah, ok jërëjëf euh, sëñ Modou mm-hmm. ñoo ngi lay fay di siyaar mbooleem téléspectateur yi bàyyi xel DSTV di jaarlu nuyoo bi ak ziar bi ci yow mm-hmm. nga joxal ñu ko mbooleem ku ne ci kër gi di fi yëngu mm-hmm. ndax yaakaar naa kër gi suñu kër gu bopp la mm-hmm. tey ñun itam bokk nañ ci liggéey bi kon ñi ngi leen di siyaar bu baax a baax ku ci mel ni sëriñ Moodu Dieng moom itam di suñu xarit di suñu lépp ñu ngi koy ziar bu baax a baax di siyaar xalif général kulu murit Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool ci ànd ñaanal mbooleem taalibe yi waaye ñaanal tam mbooleem waa gëm sa bopp jiital ci nuyoo boobu le président Bougane Gueye Dany euh, président mouvement gëm sa bopp le jàmbaar di ko ñaanal moom tamit ay mébétam ci réew mi mu àggale ko di nuy mbooleem département Mbàkke bi yëpp di nuyu Sénégal gépp di nuyu nag diaspora bi ci di leen jaajëfal bu baax a baax. macha allah am na solo jërëjëf comme ni mu ko waxee rek avant ñu ngi nuyu xalif général ko murid ak kilifa diine yi fi nekk aada yi cosaan yëpp mais Moussa. Mhm. dañuy commencé actualité bi. Mhm. muy lu ay di njàmbat. Touba ne xam na jamono ji mi ngi dund situation bu difficile. Mhm. ci wàllu inondation ndox mi ñu gis Touba suñu Mountakha mel na ni jël na responsabilité bi ci dëkk bi. malgré état bi def na ay effort mais noo gisee situation bi am ci dëkk bi ak inondation bi ak taxawaayu état en tant que doomu Touba. waaw euh, sëñ Modou. Mm. Euh, côté inondation yi comme ni nga ko waxee ci actualité. Mm. muy mbënn mi nga xam ni amoon na jamono yee ci ginnaaw. Mm. ñuy ndokkeel bu baax di massaw mbooleem koo xam ni loru nga ci seen bakkan des. ak ñi nga xam ni génn nañ seeni kër. te dara waralu ko lu may mbënn mi. ñoom itam ñu ngi leen di masaw bu baax a baax. di saluer bu baax itam jëf ju am solo ji xalif général ku lu murid Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké def mm-hmm. ba woote wooteem bu am solo boobu ni képp koo xamante ni mm-hmm. mën nga ko mm-hmm. nga indi sa alal walla jumtukaay yoo xamante ne mën a jàppale nit ñi ci mbënn moomu kon ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax bi ñu wootee nag euh, fekk na lu jiitu loolu état senegal xëy na bi nawet bi tàmbalee laata mbënn mi di am yëkk si nañ seen i jéego ministre bi ñëwoon ci dëkk bi bu sell bi di Touba ca taw yu njëkk yi mm. waaye ba mu ñëwee itam la mu waxoon mooy mm. nawet bii ñun mënuñu ci dara mm. mais est-ce que est-ce que loolu mënuñu mënuñu wa dégg ndax bu ñu xoolee presque 3 mois nga def nawet bi ñëw loolu est mën nañu ko boole ci sam nawet comme ni mu ko waxee est-ce déggante beneen boo ko déggee boo ko mënee déggee paa paa ngeen bañ ko ba politique non politique wuñ ko. ndax man jour boobu euh, su fekkee yaa ngi woon ci euh, bis boobu soo rappelé. Mm-hmm. man maa ngi woon ci délégation boobu. en tant que taskatu xabaar. Mm-hmm. nekkoon ci moom ñu jaar fii ci ci kanam tuuti ci Kër Ñang. Mm-hmm. Ngiraaneen dem Ndaamaatu. génn fa dem résidence ak yu mel noonu ba ci Daara Xuddoos. kon ñun politique wuñu ko. dañu am loo xamante ni bii dañu xaw a na metti boobu ndax en tant que ministre ñu dénk la wàllu assainissement dénk na wàllu ndox mi euh, ay nit ñëw ne ci ay jafe-jafe au lieu que nga dalal leen nga wax leen ni leen mën kat lii ñun état Sénégal mënuñu ci dara euh, dañ leen jox ay pompe pompe ya nga joxe ya nga dige woon melut na mu war a mel qualité ba war a na def itam melut noonu nga dellu si waat fi ci am mbënn nit ñi dikkati nga ni naan leen nawet bii di suñu nawet. Ah, déet mais mais léegi lépp lu baax mais Moussa Moussa ñoom dafa dafa ne trois trois délégations ñetti ministres ñoo nañu fi musa euh, ministre de la santé ñoo nañu fi ministre de la femme ñoo nañu fi ak chariens yi ñoom ñoo nañu fi indi seen matériel indi fi appui bu am solo te ba léegi bàyyiwuñ ñu ngi indi seen matériel nga bëgg ko minimiser. non loolu mu <laughs> non non nungul nañ leen ko. Hmm. ca rafetlu nañ ko itam. Ah, <laughs> waaye day nekk lu nga xamante ne li bëgg a wax mooy. Hmm. Euh, ñun dañu leen a dénk suñu réew. réew moo xamante ni euh, Sénégal yi yëpp ñoom dañ ñoo waxoon ni suñu jëlee réew mi deux mois trois mois di defar Sénégal mais am na loo xam ne c'est non Moussa am na loo xam tamit soo trois mois kër sax mën na ko ca tabax léegi kon ka ko waxoon lu mu def kon mais est-ce que nekkul waxu campagne comme ni ni nga ko waxee diggéey ah. campagne bi moom boo ko gémmee sa affaire la ah, comme yéen ni ngeen koy koy defee bu ngeen campagne moom li ngeen wax rek jàll euh, ñun ñu ko gëm ñun la ñun la intéressé mais pas ki koy wax. non dëgg moom. mu buñ wax man waxu politicien laay ba ñu dégg. ah mais moom ngeen di def di. non non non bul ne yéen moom ngeen di def. Ah, da nga naa ñoom Ousmane Sonko ñi ma àndal moom la ñuy def. déedéet ah ba gën sa bopp noonu la ñuy def. waaye li wër ci wóor mooy. Hmm. Euh, nit soo nee bu ma kenn may état de garage. Hmm. ci ku fi toogat ci réew mi bu leen ko ko may. Hmm. marqué à la euh, culotte. taq leen ci ku ñëw. lu mu def wax leen mm. lu mu jëf def leen mm. kon nag yaa xëyta mu laana yéen mm. ak ñun waruñu koo layal waruñu koo defal daal ndax moom moo ne su ma ñëwee ci réew mi vidéo yaa ngi circulé bu ma kenn bu euh, deux mois seen dund dina soppeeku seen taxawaay dina soppeeku seen melokaan dana soppeeku ñun nag bi ñu toogee deux mois ba trois mois euh, muy euh, quatre-vingt-dix jours yooyu censure am lañ tàmbali nag ni ko mm. yow kat da nga waxoon bu leen ma may deux deux mois ma defar réew mi mm-hmm. deux mois yooyu may nañ la ko ba trois mois mm-hmm. ba trois mois yi tegtal ay euh, tegal ay fan mm-hmm. léegi nag la nga waxoon gor ca wax ja lépp loo waxoon tàmbali di ko appliquer. soo ko appliquer wut. am na leen lu mu tudd lu may dëggu ak dëggal. ok léegi ñu gis suñu Sëñ Mountakha taxawal plan ORSEC ñu si doon xaar état bi mais Sëñ Mountakha moom def na li ko war muy taxaw dëkk maam bi bu mel ne ni kuréel gi mu taxaw junatu xaw naa am ay kii mel ne dañuy jël communicateurs yi comme sa galaas gi nga xam ne communication bi macha ñu dugal leen ci est tamit kuréel googu ni muy doxee 100 pour cent. man kuréel googu pourtant maîtrise wu ma baax de. Hmm. ndax euh, yàlla dogal na musuma teg sama tànk foofu ñu koy foofu ñu nekk. xawma sax nu mu mel xawma ña fa nekk am na ñu ma ca jot a xam waaye man mosuma faa teg sama tànk ndax dama gis ni kuréel googu dañ ko composé ay politiciens nga ca ay nangam nga ca ay nangam nga ca lépp di doomi dëkk bi c'est normal waaye nag dafa am ñoo xamante ni fu ñu leen séen rek dana am lu nit ñi xalaat dana am lu nit ñi njort dana am nu mu demee ñun ba suñu euh, délégation keroog bi président Bougane di ñëw Touba euh, ñun dafa fekkoon boobu man mu woo ma ni ma waajalal mbooleem foo xamante ni gis nga ni mbënd ma gën leen a sonal ñu ñëw fa indi fa suñuy ndimbal ñun waa gëm sa bopp loolu loolu dinañ si ñëw insha allah mais nañu wax ci point bi ba pare après waaw muy point junnatun bi euh, li ma la wax mooy dafa am ñi ñoo xamante ni saa yu leen séenee ci benn kuréel rek hmm. ñëpp dañuy jàpp ni kuréel boobee dóor la wala hmm. kuréel bi nàngam la waaye suñu taxaa ba mu koy samp hmm. moom la mu bëggoon mooy Touba ca kanam mairie bu Touba ak euh, Hizbut ñu àndandoo liggéey bi doon benn. def benn bolok. def benn say. xàccandoo dóorandoo. ba ñi nga xamante ni ñoo nekk ci jafe-jafe yi ne ci tolof-tolof yi. ñu génn leen ci jafe yooyu. génn leen ci tolof yi ni ko sëñ bi bëggee. ba li nga xamante ni mooy ndimbali. mën a àgg ci ñoom heure ba mu ci war a àggee. ñu mën a def ca nga la nga xamante ni mooy seen taxawaay. muy taxawaayu nit ku nga xamante ni mbokkum taal bi moo ne ci ay jafe-jafe. Mm-hmm. waaye malheureusement soo seetloo. Euh, pour nga yegg fa junnatul nekk rek. Hmm, problème la nit ñëpp ñi ngi koy jàmbat dañ faa teg ay policier hmm. pour nga mën faa àgg da takk bats. Hmm. wala nga takk sile. ba tey nit ki su ñëwee war a euh, gaaral. li mu war a gis ci biir dëkk bi. day am jafe-jafe àgg ci ñoom. ca ndax taalib Serigne Touba boo xamante ni bii. ñoo waral ñu naan mbënd mi. ñoo waral ñu naan jafe-jafe yi. ndax ñoom war nañoo yelloo. ñoom ñu ne ci biir kër Serigne Touba ga. di def di di dund nañu war a dundee. Mm. di def lañ war a def li ñuy sëñ bi leen ko sant. Mm. loolu moom c'est normal. Mm. Ah. war nañ leen teg ci ay place yu baax. war nañ leen teg fu baax waaye tam ñu bàyyi xel ne su ko nag mbënd mii. su dul woon nag ñi ciy am jafe-jafe. kenn du leen euh, kuréel googu du am. mais ba tey mu mel ne recensement bi mel na ni ndax njëkkoon na recensement ba ba boucler ko. mais instant ba léegi jafe-jafe yaa ngi am ndax yenn saa yi da ngay ñu ñu ñu xamee laaj mais ba léegi mel na ni recensement bi des na am ñoom bindu wuñ ñeen ñi bind nañ ba pare ñu ngi jot te war ñoo jot mel ni bëri na ay problème ci biir de. maanaam loolu euh, soo seetloo li ko waral mooy. Hmm. mooy ba leen bi joxee ñu war a def benn tànk. Hmm. tuubaa ca kanam lu ca waay mën a wax. Hmm. xam ni lépp luy jafe-jafe ci Touba recensé nañ ko xam nañ ko mm-hmm. Hizbut Tarqiyyah yàgg nañoo séddale mm-hmm. commune bu Touba itam yàgg nañoo séddale ñoo mm-hmm. ñooñu su fekkee nag mun ñoo ànd ca yàlla tax am na loo xamante ni bii am na ko ci waxut dëgg su fekkee mun ñoo ànd rek ca yàlla tax ñu naan kee jaar fee kee jaar fee ba sën nga dégg ay wax war nañoo mën a àndandoo def benn bloc xool lépp ca yàlla tax ñun ñi nga xamante ni bii dara daluñu mbënd mi laaluñu mën nañ cee bañ a am dara lu ñu séentu ca loolee ndax taalibe sëñ Touba yi nga xam ne sëñ Touba daf leen a ñor ñoo yëkkati seenu ñàq ak fu ñu ko mën a liggéeyee ñëw indi ko ngir wooteeb sëñ taxa muy ay milliards mm. muy nangam muy nangam mm. su boobaa nag la ca war mooy mm. bu ñu am xaaj gi ak seen ku sori ak ku jige buñ ci xool kii doomi diw la buñ ci xool kii mooy diw nañ ci seet nit ki loru mm-hmm. ak loraangeem fa mu toll mm-hmm. ñu bind ko su ñëwee xool kenn ku ne la nga yellool mm-hmm. la nga yellool nag bokk na ci kenn ku ne nga jox ko cëram am na ñoo xamante ni seen kër daf buntu kër moo inondé am ndox pour nga fay dugg yi am jafe-jafe am ñoo xamante seen i kër daf ci daanu am ñoo nga xamante ni ndox mi dañ leen a génne ba ñu génn nga xamante ni foofu ñu dëkk moom nawet gi di diiraan nawet bi duñ fa mën a duggaat mhm. kon ñooñu dañ leen di seppi mhm. yóbbu leen feneen mhm. lañ war a manq ñu manq ko waaye itam ndimbal la leen war a jox itam warut a yemoo warut tolloo warut a def nangam ndax wax dëgg yàlla nag soo nee nit nga jël ñaari ñetti saakoy ceeb wala ñeenti saako ceeb jox ko euh, ndax mën naa euh, indi génn nit ki jafe-jafe ak nit ñi fa coow li toll ak dajale xaalis bi ñu dajale ba seex bas moom ci boppam ne nit ñi xaalis bi ñëw na ñëw naag doole Ah. sant nañ gërëm nañ bég kontaan ci nit ñi mm-hmm. kon nag kenn ku ne ci waa Touba war nañ cee gis seen bopp mm-hmm. waaye nag solution ba itam bokk na ca mm-hmm. li Sëriñ Mountakha wax suñ leen génnee ci ndox mi seppi leen nañ leen wutal ay kër yoo xamante ne fa la ñuy duggi ëllëg ba lii ëllëg déwén état bi dina mën a jekku dëkk bi mën a def lañ war a def ci euh, inondation bi mën ko def ci assainissement Touba ba ndax Touba nañ xam ne waruñu ko politiser ñun ñëpp ñoo ko bokk ka nekk mm. ca fee ka ne ca fee ka ñoo bokk wenn wàccuwaay bokk wenn bëgg-bëgg mm. loolu nag mooy li nga xamante ni mm. moom laa gis ni suñ ko defee ci transparence kenn bañ cee gis sa bopp ñëpp ñu xam ne taalibé sëñ Touba lañu sëñ Touba leen samp santab liggéey mu di sëñ Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg loolu ci ànd ak wér lañ ca war a xool mooy mbégteem bànneexam waaye waruñu cee xool mbégteem kenn waruñu cee xool bànneexu kenn wur ñu cee seet itam lu neex nit. lu may mun mbégteem sëñ. ok lii moom cri a cœur la moo tax faaw ñu njëkkee ko Touba wax dëgg yàlla li muy doxee am na solo suñu mën taxaa am na mm-hmm. intention bi mais gars ñun ñun waa dëkk ñoo ko gën a war a mën a jàpp te ku ne xam na dëkk bi nawet bi na metti na lool te inondation bett rawatina boo duggee si yenn koñ yu ruqe yi moo tax mënuñu ko ñaan njëkkee mais Moussa en tant que politicien gis mm-hmm. nañ ISRA bi lu ay di njàmbat muy li siy génn. Mm. ngeen taxawal ngeen taxawal intercoalition. Mm. muy coalition takku wallu ak sàmm sa kàddu. Mm. mu ni coalition coalition supp gàncax la comme ni ñu ko baaxoo defee yéen en tant que gëm bi ngeen politicien du tey ngeen ànd ak maam système bi loolu est-ce que sooy loolu ci wax dëgg yàlla Moussa <laughs> li nga wax sa question bi am na solo. wax dëgg yàlla euh, li ma la ci tontu. mooy. Euh, coalition ak euh, coalition entre digënté bobu dafa yag su fekké coalition mom dafa inter coalition bi nga xamné mom ngay wax ni nak yakarna naa di ci la te su kon lool ngay wax kon ñi ne ci euh, tay ñu naan anti système ñom ñoy ñee tay ñoko ñëk njëkk a incarné ñoo fi njëkk taxawal ci di ci fàll la ñu andalon taxaw ko ci bañ koy taxawal ablay wad ñom ñinga ci won élection mm. yooyu. Mm. soo seetloo. Mm. mbàkk gii ñoom dañ koo bàyyi woon ak Ablaye Wade. ndax ni seefam la moom moo fi moo fi moo fi man moo fi ëpp doole. ñu bàyyi ko ak Ablaye Wade. mais mais mais Moussa Moussa yéen yéen élection yi daal li tax jàpp li liñ diggal sa leader Bougane. Mm-hmm. mu ne élection yi daal li tax jàppale wut gouvernement bi fi nekk nii tey jii. nee li ñu waxtaan Macky Sall te moom du ànd système. Mm-hmm. ba te ngeen du ànd système. waaw léegi loolu moom da nga ko bëgg a laaj rek ngir ngir ngir wax. Ah, en tant que coordinateur départemental bu Mbacké wax naa ci waxati ci dinaa la ci tontu. puisque ñun gëm sa bopp lépp lu ñu nekk lu leer la ca dañ koy xool ba xam ni ñun suñuy dugg lu ñu duggantu Moussa li ngeen dugg leerul moom wax dëgg yàlla waaw da ngay bàyyi ma yeggale <laughs> léegi allez-y waaw da bàyyi ma yeggale <laughs> allez-y ndax soo waxee nii rek mm. leer ci bopp nit ñi mm. te dama bëgg li ngay li ñuy leeral mu leer ci bopp mm. sénégalais yi ak mboolem koo xamante yaa ngi bàyyi xel mooy li tax ñun euh, élection li euh, président Sely nga wax. Mm. ànduñu ak waa kër Ousmane Sonko. Mm. man la président Bougane leeral na ko man mii leeral naa ko mbooleem suñu responsable. Mm. leeral nañ lan moo tax ànduñu. Mm-hmm. waaw léegi lan moo tax léegi demee ba nga xamante ne. Mm-hmm. Euh, anti système la ñu wax. président Bougane dafa wax ne. anti système Pastef la gëm sa bopp. Pastef gëm sa bopp. Mm-hmm. su ma demee ba nga xamante ni sama candidature téye kale nañ ko recalé nañ ma. kan laay àndal Ousmane Sonko laay àndal. Mhm. wala ku fi teg ndax ñoom laa jàpp ni ñooy anti système. Mhm. da ngay déglu li wax mu leer. ok maa ngi dégg euh, ku mu fi teg rek. Mhm. mën naa loolu moom laay àndal. ba mu woo ñu ñun réunion boo xamante ni bii daf ni day déclarer ni day ànd jeeg euh, euh, Diomaye président. loolu xanaa siiwut. Ah. dafa ak hmm. dafay ànd jeeg waa Diomaye président. bi mu waxee day ànd jeeg waa Diomaye président. Hmm. woo ma man. wo responsable yenn yi ne mm-hmm. ak département yëpp. Mm-hmm. ndax moom yàlla da koo may euh, mboolem 46 département yi ci Sénégal yëpp. Mm-hmm. am na fay représentant. mboolem communes yi li muy bari 500 nangam yëpp. gëm sa bopp am nañ fay représentant. léegi nag bu ñu leen wooyee ni leen ñi ñenn ñi nañ ñëw. dañuy def déclaration pour dem ci coalition jomay président. ci diggante boobu. def na 4 jours. ñu war ko def ci sa benn samedi. samedi boobee man vendredi. laa déparé Touba. jëm dakaar mhm. pour teel am yu ma réglé yu ma lijjanti pour ñu mën a mën a yegg teel a yegg ca bërëb ba fañ koy defee. Mhm. bi ñu demee ba ba euh, vendredi ci guddi. Mhm. bi ma duggee dakaar jëm parcelle. ci la ma euh, secrétaire Bougane président Bougane woowu. di yaa Adama Diallo. ni ma Moussa président nee na affaire bi da ngeen def tere attention xaar ndax am na loo xam ne yëg na ko moom ca donc mu ngi koy vérifier ba xam lii lu am la wala du am. su dee lu ama ah, ay la yëwan mm. ngeen déglu ko lu ci mën a am dana wax waaye ndajeem suuf bi moom mi war a def déclaration bi mm. pour ànd ak Diomaye président mm. fomm na ko ma ne ko ma ne duggoon naa Dakar waaye noonu baax na léegi ma ma daaneel li mu di li mu xamoon li mu xam moom dafa bokk ci ñi nga xamante ni ñoo gën a informé wu ci Sénégal moom la président Bougane ndax benn journaliste la ñaareel ba am na ay sources yu leer yoo xamante ni bii ay nit ñu nga xamante ni dañuy liggéey Euh, ak mom ci lepp lo xamanteni warna xew ak mm-hmm. dana xam mom li naka la cey ni la la mm-hmm. ak lu mu don mm-hmm. nak ba ni euh, président Macky Sall na Ousmane Sonko président Diomaye gisanté nañ mu ni très attention ci lolu bimu nak mom ba am ni nañ. Euh, Euh, protocole kab man yàlla lañ doon wax ak yu mel noonu mm, mm. waaye président Bougane moo leen wax lii bañ gisantee muy teeru Baye Sogui teeru Baye Sogui benn bërëb la bu ne ci Dakar mm. du lu ñuy wax nii di wacc rek <laughs> ñi am xam-xam ci Dakar xam na ni teeru Baye gi am na foo xamee ne foofu la nekk ci Dakar fa lañ gisantee ñoom seen gisante boobee bi ñu demee sax euh, Moussa Sow mi jiite COSER génne foto ya xëy wandee ni leen Macky Sall ak Diomaye ñoom fii lañ gisantee nii lañ gisantee photo yi tasaaroo mun man ndax ñoom waa Pastef dañoo waxoon ni képp ku gisanteeg Macky Sall muy kilifa diine muy kilifa aada muy ku mën di doon dañ lay saaga ni yow nit ku bon nga baaxoo defoo nii duggoo fii génnoo fii léegi nag ñoom ñu dem gisanteeg président Macky Sall lan tënk ak moom leen président Bougane laaj ni leen li ngeen euh, li ngeen tënk lan la ndax Ousmane Sonko bi mu génnee wax na ko leer na gisante nañ mm. waaye ba ñu gisantee itam la ñu wax mooy Euh, am na lu ñu déggoo am na lu ñu déggoowut président Bougane ne li ngeen déggoo laa bëgg a xam ak li ngeen déggoowut léegi nag moom day nit koo xamante ni mm-hmm. kenn du ko tënk ni ko fii ngay xool mhm. su dee wéet mhm. day gore mhm. su dee wéetaliku day gore su fekkee nag ñi indi jafe-jafe seen ànd seen diggan ñoom ñaar nañ ko laaj président Ousmane Sonko ak président Diomaye ñi nga xamante ni ñoom ñoo gisanteeg Macky Sall ci waxoon ni ñoom anti système lañ dañoo nekk ñu radical ci duñ gisanteeg Macky Sall ku gisanteeg moom da ngaa bon waa Pastef di la saaga mais mais mais mu mel ni ba tey est-ce que loolu déjà comme yéen politiciens yi ñu koy defee mu mel ni ñàkk fonk si la ndax moom moo tax publiquement daan ne bu Ousmane bu Ousmane Sonko bu ma rekkalee midi ma dem jappelé wa coalition positif bi fi nekk treize exemple non la ko waxé ba vidéo yépp dem. après ñu gis ak yeneen délégation jugé wat ci coalition Diomaye président. dem seeti ku ñu mën ca neem ku ci ne Emma Ndiaye ministre ak autre responsable dem seeti ko mais ba légui Diomaye soy d'accord par lim lim la mañal a té mom la mujjé def muy coalition bi. avant muy def entre coalition bi mi ngi def coalition sam sa kàddu muy ñoom Barthélémy Dias Khalifa Sall ñoo nga xamne socialiste depuis magi dembe ba lay ñing après yow nga tay am nga bëgg nga am taxaw avenir politique bëgg ngaa kerlu ba dem àntaat rek dugal seen biir ba pare taxaw position bu baax est-ce que loolu tamit léegi ma nga wax wa parti socialiste yoy hmm. ñan ñoo yóbbu Barthélémy Dias hmm. mu nek maire Dakar ñan la lolon mais mais mais non da ngay non non Moussa Moussa Moussa Moussa man man man su ma li baaxut tekkul na yow boo ko defee dana raw baax dama lu bon taxut yow nga la man ma dégloo rek yëpp def lu bon yow kay da nga li ma def nii li def lu bon la defoon yaa ko waxat ndax yéen a du ñu waa système

da nga ni dama ni la. Mm-hmm. gisee baay bañ gisantee. Mm-hmm. dañ ni ñoom ku gisanteeg Macky Sall. Mm-hmm. yaa bon. ku dàq saaga euh, Macky Sall àndal. yaa baax. ba ci suñ kilifa diine yii dégg ngeen lu leen yàkkut. ba ni sax dem nañ ba ñoom ñu ni ñoom waa Pastef. képp koo xamante ni bii sa sa sëriñ digal na la. àndal ak Macky Sall. Moussa yaa ngi lankal Moussa Moussa yaa ngi diaboliser non non waaw non sëñ Mourou soo bëggee émission bi neex da ngay bàyyi ma xam nga dama wax dama lay nag mënuñu ko autorité ci émission muy am ay yenn mën nañu wax politiquement. léegi mu jàll mais pas. diabolisation nag non loolu diabolisation. à des temps ñoom ñoo ko wax mu am fii waaye su fekkee man dama ko sos. mais déet mais mais dama ko ko. Ah, ah, ma nga cay daane duma am du du ma d' accord kenn saa kilifa diina te man dooñu ko ma waxee mais comme ni ko bëggaan waxee noonu la Sonko waxee. waaye yow xam nga ma ma répondre. damaa ñëw pour poser la question. ok kon su ma la su ma posé. waaw da ngay déglu ma répondre la clairement. non mais pas kenn. dama la ñoom seeni wax laay wax. waaw allez-y ñoom li fi wax lépp. Hmm. li ñu fi def lépp moom la leen di vaaral ñun teguñu dara tout ça puisque Sonko wax na lépp ba pare def na lépp ba pare ah, ah, ah, barki ko mm. su ngeen ma ki waxee wax na nangam 100000 francs ñu dóor ko 100000 francs mm. mu ni su ngeen déggee nangam euh, ma <laughs> lépp ba pare dina fi ñëw de def lépp ba pare bu def lépp ba pare mm. kal léegi ñun suñu vaar lañu indi teg ci laaj ba ko xam pour mu pour ñu avancer ci laaj boobu mm-hmm. maanaam ñoom Euh, coalition. président Bougane mësta génn ci ñoom. pour ni leen du ma coaliser ak yéen. waaye nag nit ki su fekkee ne dan la. soo àndeek Macky Sall. soo àndeek nangam soo waxee Macky Sall yow da ngaa bon baaxoo. mu gis ñoom ñu dem toog ak Macky Sall. wax ak ñoom ba signé. ba signé. léegi nag ñoom moom moom Bougane nag léegi kon moom ak lu ngeen bëgg mu def ko. ak xusuma ñàpp ñu koy yóbbaale fu mu toll wala muy def nangam. mais non day bañ. Hmm. ab bañkat la day bañ. du masa nungu loolu. te du masa àndeek kenn. léegi. Hmm. ba mu leen da leen laaj. Hmm. yéen Sénégalais kay yéen waroon laaj eh, ni leen. Hmm. Ousmane Sonko yow ak Diomaye. lan ngeen jàkkoor ak Macky Sall gi nga wax d'accord am na lu ñu d'accord am na lu ñu d'accord ko war a laaj. mais est ce que ne ñu ñu ñu ñu bëgg moo tax ñu ñu nangu loolu ñoom la concerné moom ñoom ñoo ko xam. Ah, fa réew ma toll woon. ñoom ñoo woote woon toj. ñoo woote woon gatsa gatsa ñun ñun jàmm salaam lañu woote woon ndax président Bougane daa liggéey ci réew mi ba def fi loo xamante ni su doon toja mm. yëfam dañuy njëkk a toj mm. ñay toj nag moom yor defuñu fi dara mm. kon nag su leen neexee toj station yi jàmbur su leen neexee toj kër yi jàmbur lu leen neexam def su leen neexee lakki jàkka loolu ñoom la concerné su boobaa ok mu mel ni allez-y daane la fekkee ñoom ñoom loolu ñoom la concerné léegi nag coalition bii président Bougane moom moom bi mu bi loolu amee dañuy man ànduma kenn li fekk lii leerul ñun ñi nga sës ñoom dañuy li fekk lii xamuñu lu mu doon man du ma ànd kenn yéen ñi nga xam nag yéen nekk ci man ku leen neex dem leen ngeen voteel ji ko su fekkee deuxième tour am na hmm. dinaa leen wax kan laay àndal ci digg ci diggante bi léegi loolu ñun man mii hmm. am na ñu ne fii ci si bi toog hmm. leer na leen man campagne ñu ma waaye ba vote jotee samay nit dama leen dugal ci oto wateel jomay président ndax booba ñun président Bougane man loolu la ma sant ni ma wateel leen man la ma sant laa def man ba ma watee génn tam benn journaliste bu bokk ci Pastef woo ma laaj ma ni ma Euh, noonu def nga. waaw du ngeen dama ni leen jëfe naa ndigal la. du ngeen bàyyi presse bi ngeen di tagge ak Pastef ak. ak non da caa bokk da caa bokk. daa am carrément moom moom nëbbu ko kenn da caa bokk day day day def yëpp day partage moom da caa bokk mm. yërëm site internet am ba ma ah. génnee laaj ma kay lu ma ko wax mm. defe naa ndigal la ma président Bougane wax def naa ko wote wote naa wote la Diomaye wote la président Diomaye ñoo ku la doy kenn ku nekk la doy mm. su ma xam c'est parce que suñu ma woon Moussa Diop bul vote ji sama carte d'identité dama koy téye du ma vote ñi ma àndal duñu vote ji waaye ay kaar laa joxe sama xaalis laa joxe man am na ñuy fëgg dënn tey ci Pastef la ma def ci Pastef booba ñoom defuñu ko ndax sama xaalis laa génne joxe kaar ñu dem vote ji woteel président Diomaye. ok léegi nag. Mhm. kon kon kay ñun. ok am na su su fekkee ni lañ ñu diggoon ña nga woon. Mhm. ñun ñun amuñu problème yooyu waaye nag. Ousmane Sonko moo ne ñu. Mhm. bu leen ma may dara ko fi nekkati. <laughs> bu leen ko may kon nag duñ ko may dara. dañ koy sës. saa yu nekkee ci yoon wi. ñu ni ko bravo. waaye nag su fexee lu waxuwul. ñu egsi. ok mu mel ni taxaw ngeen coalition bi entre coalition bi. Yewwi Astafurlah Takku Wallu Sénégal ak Sàmm Sa Kàddu mais mel na am na problème ci investissement ba pare.

non groupe WhatsApp. ah Moussa Moussa Moussa li ma wax am naa suuf yow xam nga ko sax. groupe WhatsApp yi kay benn xaru ci. ah déedéet gars yi ñu ngi ñoo xam ne fi ñu samp fi ñu samp bu am ba pare. non daanaka yéen seen militant yi département Mbacké amu fi kenn koo xam mi ngi mi ngi ci liste bi suppléant nekku leen ci. non am nañ suppléant. ci entre coalition. non am nañ suppléant. ah soxna ci bëgg yi. département Mbacké. Hmm. suppléant la. ci gëm sa bopp la bokk gëm sa bopp la bokk. kon xanaa département Sénégal yëpp fii doo ngeen am suppléant. fan département Mbacké. non loolu mën naa ne xam nga cinq position ngeen nekk. xam nga coalition hmm. maanaam mooy damay indi yow nga indi. Hmm. sëñ Modou Dieng indi keneen indi. Hmm. maanaam ay partie yu baree bëri lañ ak ay mouvement hmm. suñ ñëwee nag ñaata nit lañ ci soxla. 66 personnes xëy na. wala wala wala 86 personnes lañ lañ soxla. ndax euh, wala wala wala 100 nangam. puisque liste bi 53 lay doon. Ah, ak liste mooy euh, titulaires yi. 53 suppléants yi. légui nak ak liste département yi yii 5 yii 7. yii 2 yi nangam bam mm. ba ni ni ni kenn ku nek salaire nam amé légui nak léegi so loolu soo leen bëggee def. Mm. ba nga composé leen. Mm. ca jafé jafé du am. il faut am ko sacrifier bopam président bougan né bam ñëwé dañ leen. ban place mom muju ci leader yi. ñu ni ko 11e place. mom mo jël big bind 11e place président bougan ni leen. légui nak kan moy jitu

mais est-ce que nekkul tamit ragal la ndax comme ni ko comme comme ni ñu koy waxee ci réseaux sociaux yi. Mhm. bugaan di bañ bëgg bañ bañ bëre bëgg bëgg bëre bañ bëre. bëgg bëre bañ bëre comme comme yàgg naa daw élection yi daal bokkutoon. Mhm. élection bi mujjee dem maire bi na ko jox premier Barthélémy Dias sax daf ko waa dóor muy euh, Ndakaaru. Mhm. c'est que non fa fa fa mu defoon candidat député fa fa mu defoon candidat maire pour war Euh, porte élection yooyu moo xam mooy mooy première élection te bureau ba mu waxee nañu ko faa gagné. Mm. est-ce que nekkul moo tax mu xam Bougane fan mooy base am ba léegi la man mu yor na rajo yor télé di wër di coow rek mm. de moom wax dëgg yàlla kenn ku nekk sa xalaat duñu ko bañal ñun. ay mais loo xam ndax ñun dañuy dañuy wax suñuy xalaat. Mm. ci ku mu munti doon. kon nag nit ki la muy xalaat. ak la muy wax. ñun dañoo fair play képp koo xamante ni bëgg ngaa wax ci gëm sa bopp waxal mm. na nga ko sentir ñun tam suñ génnee wax lay dëgg mm. ndax sos moom mm. fi lañ ko fekk ca fi lañ koy bàyyi ca li wér ci wóor mooy président Bougane su bañee dem ay élection kon xanaa ñun lan la ñuy liggéey ak moom li muy liggéey lan la ah ndax leader ga day am base politique nee moom moom ndar ndar la mais lan moo lan moo te mu dem ndar xëcc wuti fa base politique pourquoi ba mu xëccoo maire ba wala élection yi mu dem jiite tête liste ndar mais moom duggaay ci liste nationale taxaw boo xam ne leer ko bugaan ndar la dëkk hmm? ndar la dëkk ah yaa ñu ko wax kon de ku nekk fa nga yeewoo fa nga dëkk non fa nga nga dëkk bugaan Dakar la dëkk ndar mooy cosaanam waaw waaye tout Dakar la dëkk kon xanaa xanaa Ousmane kon Dakar la dëkk mi daa dem ah dëkk fu xam nga bokkuñu ah déet mais nit ki maanaam moom xëy na sensé hmm. wut bureau de vote am sensé wul dara mom mom moom moom Ziguinchor lay voté yi Ziguinchor lay voter yi président bu gan nak mom Dakar la le deuk dëkk Dakar lay biyeem nek Dakar li pam nek tay suñ doon kon mom da gedd waa Ndar ñëw Dakar non gedd waa Ndar ah, ah non non ah. loolu du gedd ah. parce que nit hmm. euh, nit ku nek hmm. ya xam fa sa business nek hmm. ak fa nga nek fa sa business toll nga nek fofa di doxal fa nga wara doxal président bu gan tay Dakar soko doon séddale su sét su jilé walam mhm. yaakar na ni macha allah. li ci des du bëri. waaye bokkut ak nag nga xamante ni. Mhm. da da daan liggéeyal président Bougane président Bougane diko fay. moy mhm. Ousmane Sonko. ak jomay li lor moy li lor ñoo daan daggal juuti président Bougane di ñëw di lañ bët ay ay ay ay ay société mais ñom sénégalais dañ na liggéeyal mais. mais non Bougane lañu daan su dee Bougane kon duñu leen fay. Ah. ñom seen liggéey buñ ko naré mané wax. président Bougane tax ki nga xamni mo dem futéku xex taxawal ay entreprise <laughs> bañ man ah, ko bañ man leena fay ñom président Bougane mooy seen moo nekkoon seen patron. waaye léegi ñoo ñoo nekk patron. d' accord <laughs> am réew mooy doxee noonu. Mm, mm. président Bougane mm. amul kenn koo xamante ni tey mën nga koo jëm benn baaraamu tuuma lu may daa bëgg réew mi. mu jaral ko lépp. tey su dee Macky Sall xeex na ko li mu ko xeex ñii ñëw leen diggoon Sénégal yi taxawuñ ca mu fas yéene jàkkaarloo ak ñoom xeexaat. waaye waaye ay la yëwan su bëggoon su bëggoon euh, nguur rek. nee leen da pour ngeen yeewu ci président Bougane bàyyi ko xel mooy dañ leen. bëggumaa jiite leen wax ak pal yëkkatiwuma su dee assemblée la ma fay fayeeku mu nee na moom da koy fay benn employé rek da koy fay loolu kon lu muy def yi employé assemblée lu may bëgg defar réew mi ok pour par ndax saway mi ngi ñu signalé booba tey question de temps bi mais Sénégal mhm. ñëwaat ci aniara tuuti ci élection avant ñu koy jàpp gis nañ Sénégal amoon na am na gouvernement bees am na ministre boo xam moo jiite mooy PM euh, premier ministre Ousmane mhm. ñu ko doon xaar mu def DPG mais ba léegi defu ko après président doxoon ci ay tànk yu jàmm moo président assemblée nationale Mamadou Mame Diop bañ jàppoon date muy le treize mais ca ca fan yooyu daal PM génn daan ne le douze du ngeen ko tal président Diomaye wax ne le treize dépassé dina am. même Sénégal dafa ne si crise boo xam ne crise parole la diggante PM ak président. ñaari kàddu yi waral lu manqué woon Sénégal muy kàddu gu dëggu taxaw comme li ñu doon xasee Macky Sall yoolam signature benn nit daf ñoo commencé dal ci réew loolu kay yomb na hmm. yow wax nga kàddu Ousmane Sonko ak kàddu ban moo ëpp wax nga tontu nga sa bopp ah hmm. ga fi nekkoon ci Macky Sall ñu ko doon wax hmm. moom lañ gisaat fii signature nangam nangam mais déet mais mais ñoo yi est mënuñu ko wax ndax ma bi fi heure ki waaj argumenté na ko ndax nee nañ situation bi amoon assemblée xalaat duñ ko bàyyi muy dox ensemble bon ñafa nek Sénégal ñorul leen lu lu président andi comme ni ko président waxee. déedéet lu ma andi dañ naa fa ay poros ju bëgg ñu bëri ko. delu ci la ma waxon rek Ousmane Sonko waxon ni. Hmm. assemblée nationale. mais est ce que wax Ousmane Sonko man nañ ko japp nak légui jamono ak ci situation bi amni est ce que nek lo xamné jamono jamono jamono jamono bam mu wax ak bi wut na état da am ay réalité. ay réalité hmm. Ousmane Sonko ñu wax ni gëm ñu gëm gëm réalité état di nguur gëm réalité nguur. Hmm. fi la ko waxee vidéo yaa fi manam yeen manam <laughs> lepp da yomb tay ci ñun ñu campagne da yomb ñu wax ndax lepp Ousmane Sonko ñu ko wax. mo ne bu leen fi joxati kenn euh, euh, nguur ba paré di ko assemblée. lank leen yeen sénégalais yi. ba teud ci najwa assemblée bu bu bu kenen yor. bu bu nekk ci opposition bi. teewut kenn doxal day tax am réewa dox. kon mom warna am gatché wala mu rus. taxaw di campagne mom nan jox leen ma euh, majorité. puisque majorité boobu moom moo ni leen bu ko kenn joxati kenn mm. kenn ki nit ki da nga koy jox nguur mu doxal ko ñoom ñor seen nguur mm. ngeen jël assemblée bi jox ko opposition bi ñu mën a contrôler liggéey li ñuy def su ko defee Sénégal jëm kanam loolu mais est tamit waru xool député bu responsable mais pas député boo xam ne lu fa président andi boo ko leen taxawaay rek lu fa andi nga boole ko lu mel ni gisoon bi jàll ci législative bi jàll euh, lay Euh, dafa am loo xam ne dafa xew seen diggante. ñoom dañ koo woo mu lànk wuy si wu leen. Hmm. ñooñu ñoom ñu ni hmm. respecté wu leen. Hmm. maanaam du duma fi nekk di layal waa P waa PD waa APR ak yooyu moom. Ah. sama yoon nekku ci ñoom. yéen bokk waaw léegi dama la man dama la. maanaam ci booba. loolu lañ waxante ñoom. ñoom dañoo xëccante. kenn dañ ko dañ leen a ñëw ñu ñu mu lànk wii siwu leen. loola ñoom la. concerné woon. ci ñàkk bëgg réew mi lañ lañ nekkoon doon ko def. ñoom ñëpp waaye su fekkoon réew mi lañ bëgg. réew mi leen tax a jóg ñoom ñëpp. Mm-hmm. su boobaa damaa war a def déclaration générale politique. Mm-hmm. Euh, bi bi ma war a def. damay dem mm-hmm. defi ko. su fekkee am naa lu ma fa yóbbu. ma dem jàkkaarloog sénégalais yi ni leen. réew mi kat jox ngeen ñu ko. courant bi nii lañ ci fas yéenee def. su dee côté santé lii leen ci fas yéenee def. nii laa bëgg a yore réew mi njàng mi. culture générale mbolé lepp lo xam ne doxalam réew nga len ni la ci bëgg def su ko ñi nga xam ñoy investisseurs yi dañ yombal ñom ñu kenn ku nekk secteur ba nga wara a da nga dem nga ko itam ñu contrôler lolu xam la fi wax ba légui ni lambatu amuñu benn route bo xamanteni mom lañ tek dox pour réew mi mëna jëm kanam gisaguñ ko légui nak su ni euh, euh, euh, ki premier ministre hmm. da dem ba ëpp sañ-sañ ëpp président ci réew hmm. ba président bi ni maa ngi ñaanal sawaay njekk di waxtaan ak moom mm. pour mu def nangam dem ba mujjun leen waxtaan na maag moom déggoo nañ leen def nangam mm. ba signé bind mm. signé signature président de la république euh, premier ministre di ko wax ñu xotti ko taret yaa ko wax léegi de ah déet <laughs> ñàkk a sàmm kàddu mais moom lañ fi gis est-ce que est loo gisee daa am na ko war la est loolu li si ginnaaw war ñoo xool li si ginnaaw pas ñuy jëlee di ko di ko di ko teg. loolu la ci ginnaaw moom ñoom ñoo koy lijjanti. Hmm. ñun kay li xam mooy. premier ministre. Hmm. Hmm. daa war a ñëw. def déclaration ci kanam assemblée nationale. mu leer. mel ne taxawal nañ ay élection anticipée le 17 novembre bii di ñëw incha allah mais ba léegi liste yi liste yi tey tey semaine lañu war a confirmer la waa conseil constitutionnel confirmer liste yi 41 listes fi Sénégal koo xam ne dañ ne dañ koo fekk en fay presque su ma mënee waxee en réunion su ma mënee waxee policier war ñu xoolaat seen intérêt ndax gis nañ ñi organiser élection yi proposé nañ liste yi ñu def benn euh, photo bu ndaw ak def ci turquoise mais yéen opposition bi da bañ est ce war leen xool ndax bu ñu xool élection li mu ko Sénégal rawatina séréance bi réew mi dund jamono yi nga xam ne fépp metti war leen xoolaat intérêt population pas ngeen xool seen intérêt boobu ñu li leen mësatu propose ngeen def ko non ministère de l'intérieur lu mu propose rek dañ ko war a def ah mais bu dee lu gën moo gën Sénégal bu dee moo gën Sénégal ki pourquoi pas ngeen fekk ci ko li gën ci Sénégal kay fi mu waxuñu gën ci Sénégal mooy hmm. ñu xam ne ñii dañoo tële mënuñu déet loolu say wax la de waaw yow itam loolu say wax la yow ah non non non man man ko de waaw loolu nga wax léegi ni ah, ci premier ci ci l'intérêt wax la wax man lii itam samay wax la maa ko assumé ah, dañoo tële mënuñu hmm. lañ ñu digoon hmm. ngi dugg ay 7 mois ci mënuñu defuñu dara ba léegi nii pose première pierre benn mool. Mm. ab brique. Mm. defaguñ ko ci réew mi. mais ñoom dégg nañ la wax fi ñu fekk réew mi parce que. waaye bàyyi ñoom fi ñu fekk réew mi barab boo dem escandale ma fa am fi nekkoon ak ñoom Amadou Ba ak ñoom Moustapha Ba ministre finance bi fi nekk gis nga Ousmane Sonko li mu wax nee seen seen seen seen croissance bépp ay diil la woon. ak yooyu loolu moom rek loolu moom loolu moom loolu moom loolu xam ne ab xale moo ko yoroon wax dëgg yàlla loolu loolu moom bu ci sooy nan nga mën a yor réew réew mel noonu di fa def réalisation ci 7 mois maanaam ñoom ñoo yor tey lépp hmm. lépp ngi ci seen loxo hmm. lan moo tere lam waxoon Mamour Diallo hmm. lam doon wax ci Alioune Sall lam doon wax lam doon wax ci mboolem ñi fi nekkoon tey lépp ngi ci loxoom tege nit ñi xaaruñu ko ci wax fi ci jëf lañ ko xaar président Bougane daa wax ni tey képp ku ca taq ku ca laal ak noo ca laale hmm. xaalisu askan wi na nga ko génne da ko war a génne indi ko mais est-ce lu ca war dañ la ko war a def kon ñum ñoom dañuy xaar de sénégalais yi ñoom xaaru sénégal xaar sénégalais di leen ah, wax de hmm. ay wax dañ ko romb fi toll nii ci jëf lañ war a dem ak sénégalais yi jëf jooje nag lañ koy lañ leen di xaare ñoom pas ne naan euh, di indi sifur di hmm. taqal kee di taqal kee yow yaa yor lépp mi ngi sa loxo yu bàyyi yoon mu def liggéeyam ok élection yi gis nañ tey tey lañ war a publier liste bi waaw mel ne ni 40 listes comme ni ma dit, listes fi listes eh, Sénégal bi ne yu dem lim est ce que vous leen def li li leen ministre non ministre la mais ben, photo benn photo boo xam ne mën na ay milliards listes parti presque Moussa Diop récépissé dem na candidat la ñu bokkoo koo tiré sans nangam faro loolu tamit wax dëgg yàlla léegi dañuy laaj ba xam loolu loolu loolu loolu yoon yoon yoon da koo hmm. wala yoon da koo bañ. ñoom ñoom ñoom opposition bi li ñu wax. Hmm. yoon da koo nangu wala yoon da koo bañ. mais waxtaan la su fekkee waaw waxtaan la dañ ko waxtaanee nga wax lu waxtaanee. Hmm. déggoo la ak ñàkk a déggoo. déggoo nan def lañ da lañ fi fekkoon. ok nañ fi de nañ def lañ fi fekkoon. ñu jàll ci leneen. ok léegi mu mel ne campagne bi li ma commencé yéen ndax mën nañoo xam tàggoo waa euh, waa sàmm sa kàddu fan lay commencé campagne am ak naka ngeen préparé seen campagne rawatina niveau ni nga xam daan gëm sa bopp dafa pëccoxoo kenn xamul kenn xam ne yaay eh, fi dégg keneen ku ne mooy coordinateur ñi ne mooy loolu daal yàgg naa naa dem seen programme pëccoxoo euh, lay mujjee gëm bopp fii est-ce que am na mosoo fee dem ndaje mu am pëccoxoo mosul am ci àdduna fi dem naa ca bugaan ba may def kii ba Dakar ga ba may to élection eh, présidentielle eh, dem na de maa maa ngi woon maa ngi ci délégation bu jógoon Touba. waaw bokkoon naa si de. non pëcc mës taam hmm. ñun. Hmm. gëm sa bop hmm. man depuis bi Cheikh Abdou Mbow jógee. président Bougane dafay def ben comité bu ñuy wax comité d'orientation. parce que mën japon ay 20 personnes. yo xamante bi ñi ñii def leen jox communication ñi social ñi organisation euh massification. ñoom ñépp ban dajee comité boobu waxtaan ba pare man maa ne ca booba ma lañ jiital soxna Aïda Mbacke moo jiite jigéen ñi euh, communication ak euh, Cheikh Bougane ak sëñ Saliou Diagne ñoom ñaar ñoo ko yore côté social ku ñuy wax Baye góor ak Pape Sour ñoom ñoo ko yore côté organisation Cheikh Touré euh, Moustapha Diaw <laughs> et tout ñoom ñoo ko yore ci gàttal léegi nag ñooñu ñooñu ñoo euh, def comité bi. ñooy liggéey liggéey boo xamante ni liggéey mucc la. ñun dem ci coalition. muy sàmm sa coalition bi nga xamante ne euh, gis ngeen ñi ci nekk. ñun ci département Mbacké. mboolem coordonnateur yi ne foofu. dañuy daje. mardi euh, def réunion. ñun feuille de route. suñu programme. xool ni ñuy déroulé. ak est mandataire xool itam taxawaay lan la war a doon ci élection yi mm. ak nan la ñuy defee suñuy campagne mm. incha allahu yi lépp lu ci am mm. presse bi dana leen leer ndax ñun moom dañuy ànd ak presse bi yëpp liggéey liggéey boo xamante ni bu mucc ayib lay doon ñun duñ nëbbatu duñu làqatu ca ku ñu invité foo ñu mën a invité dina dem ndax dañoo am ay argument yu leer naa ñu mën a teg suñu kanam nit ñi mën a wax ok mais mu mel ni politique met na si biir dëkk bi nag ngeen ak campagne yi ñëw nag ngeen fas yéene ndax wax dëgg yàlla Touba ay citoyen Sénégal ñoo fi nekk naka ngeen préparé pour wax seen programme département rawatina sax sàmm sa ak coalition bi fi nekk ba léegi dégguñ ci kenn ko wax programme waa waa coalition présidentielle bi fi nekk ñoo am nañ seen programme mais opposition bi ba léegi dégguñu fi kenn ku ne am nañ programme xanaa ñi fi nekk lan mooy seen programme ko man ak projet bi projet la eh, bàyyi ma de bu ñu tooñ may nuyu sëñ Cheikh Thioro <laughs> di ko ndokkee suñu sëriñ di ko ñaanal yàlla dolli ko tawféex bu baax amiin wax dëgg yàlla moom nit ku baax la damay seere ci moom hmm. ndax euh, saay ba da nga bëgg dugg da ngaa bëgg a <laughs> dugg dugg ba <laughs> ah man man ah, ah, ah, non maanaam ba da ngaa bëgg a dugg waaw ba tey su la neexee nga wax waaye man sëñ Cheikh Thioro dañu hmm. séq lu nga xamante ne hmm. ñun politique bi duñu booleeg ñun suñuy kilifay diine ñun duñu mas a boole euh, moo képp koo xamante ni kilifa diine nga soo nekkee parti boo mën a nekk dañuy joxante ak yow respect ñun waa gëm sa bopp loolu luñ président Bougane sant mais duñu duñu duñ ko duñ ko jé duñ ko jéggi duñ ko wax luñ ko wërta wax mm. li fekk mi ngi respecté ñun itam suñuy suñuy kilifa mm. danañ ko respecté ok coalition bi nan ngeen campagne ci département Mbacké bi rawatina particulièrement Touba nga xam ne ñu fi ay politique si réaction bi nan ngeen koy dundee loolu moom loolu moom suñu stratégie la ñuy teg ñun ah, ñun Baye Fall yi ñun ci lañ bokk. Baye ci lañ bokk. Mm. kenn mësul dégg wala gëm sa bopp. Mm. ñu def loo xamante ni dañ ni Baye Fall yaa ngay jàmmaarloog ñoom ci lakk wala xeex wala def dara. Mm. déedéet. musul am ci àdduna ci du ma sa am lépp lu sëñ bi santaane ci dëkk bi président Bougane nee na nañ ko respecté 100 pour cent waa coalition bi ne nañ ko respecté 100 pour cent léegi nag suñu génnee Mbàkke dem Sadio dem Tiib dem yeneen commune campagne bi ñëpp xam ne campagne leen dëkk bi nag porte à porte la doxe hmm. dem ci nit ñi waxtaan ak ñoom hmm. dèjà liggéey nañu liggéey bu rëy hmm. depuis ñaari at ñu ngi koy liggéey ba fas yéene nag taxaw tari rek moo des loolu nag yàlla mooy joxe ndam te jàpp nañ ni ah yàlla baax daal léegi mu mel ni yéen ñu ne wax projet am projet lundi suba incha allah gis nañ ne état bi dina laa seen projet bi nga xam ne yàgg nañ koo dégg askan wi mel ne li na doon toog lépp ñor na te lekk rek moo def ñu doon xanaa léegi bi amu doon ah, léegi nag li ñu naan projet projet bi suba lañ koy lancé incha allah. waaw yàlla na yàlla def muy muy li gën ci Sénégal rek. Ah, léegi xanaa kon projet bi noppee nag da da ngeen bàyyi wax. Euh, projet projet bi ban na ah, ca ba. Ah, xam dégg li ma la yàlla na doon li gën ci Sénégal yàlla Sénégal. ca sénégalais gis ci seen bopp. doomi Sénégal yi gis ci seen bopp. Mm. loolu rek moo ci am solo. Mm. ndax ñun lépp luy doxal réew mi. Mm. waaye waaye yaa xëyta na mm. ki nga xamante ni bii mm. li mu investir lépp investissement bi yëpp ci Sénégal la mm. lépp lu doxal Sénégal da caa war a taxaw kemtulaay kattanam ca damaa jàpp ni président Bougane ak président Ousmane Sonko dañuy ñaar ñu nga xamante ni dañoo bokk euh, benn vision benn gis-gis gis-gis bi mooy Sénégal jëm kanam ci li ñu wax kee nag mën naa jaar nee kee jaar nee ci man euh, nekk naa président xëy na président da ngay nekk président wala nga nekk premier nguur moom yàlla koy joxe dindi sa euh, euh, raxas sa mémoire. Hmm. men dañ lay formaté. Hmm. ba la nga doon wax bu njëkk. Hmm. ak soo ñëwee li ngay jëfee. comme yàlla ak yàlli comme la Macky Sall la Abdoulaye Wade doon wax Macky Sall. nguur day nguur day def loo nit xëyu ci bopp bopp ñenn yi. xëy na loolu moo am. waaye nag li c'est que. nañu toog ñun ñëpp ñëpp nañu toog waxtaan Sénégal ñoo ko bokk. Euh, Pastef kase. bu ñu jàppee ni ñoom mën nañoo defar réew mi. mën ñu koo defar. réew mi ñëpp ko war a defar. nañ woo société civile woo am politique yi. ñi ci ñu ànd ak ñoom liggéey loolu mooy doxalam réew. ok secteur privé bi itam ñu woo leen. Mm-hmm. boole leen ci liggéey bi. Mm-hmm. loolu mooy doxal am réew. kenn ku nekk am na loo mën a indi. mu mel ni ñu man nga baal ma sama kii bi may soññee ba bëri mais nga baal ñaari question rek. Mm-hmm. mais mu mel ni Touba Séné Séné Touba mais Sénégal lay wax. situation bi jamono ji coupure courant bi mel ni dikkaat na ba pare tamit gis nañ loo xam daawuñu ko gis ci dëkk muy nemmeeku giñ gis teer bi ak coupure courant yi. ak jamono ji ku ne seen kalaas gi yéen ngi opposé ne dëkk bi léegi daal dëkk liggéey amatu nanga am na est que teelut comme ni nga ko waxee woon sànq malgré yéen a ko wax seen seen seen sorogaa la état de su ko may dara mais état de grâce tamit est amut war leen xaar état bi ba mu lancé projet ba ngeen wala tuutaata ngeen may ko un an ba mu def at mais pas ngeen ba commencé léegi commencé diaboliser di monter ay vidéo ak yooyu noonu est-ce que yaa ngi ngi coupé mais est-ce que nekkul baa ngi jol joli jëm yow nga ni teer bi euh, euh, am na problème climatiseur doxatul ba arrêté woon nañu ko ay fan. Hmm. du yow yaa ko wax. Ah, loolu lañ gis. waaw lool lañ gis kon mooy dëgg. kon kay mooy réew mi tam lompañ na. ñi ñi fi nekk xam si Sëñ Tuubaa daa wax lu am solo. Hmm, hmm, dani al ilmu imaamul amal. wal amalu taabiuhu xam-xam mooy jiitu jëf. ñii nag dañoo xamut. am nañu yéene waaye xamuñu. nañ jëli ñi xam. mais ñoom ba léegi bàyyiwuñ ndax nee nañ. Mhm. Cour des comptes ubbi na rapport yëpp fu ñu doon nii ñu ngi jàpp fu ñu doon ñu ngi commencé convoqué ñeen ñi fi nekkoon est bëgg leen ko est ce que ñu duñ bàyyi Sénégal yi kuñ jàpp rek comme ni comme ni nga def bëgg bëgg demoon buggaan wax loo xam ne taxawul amul fenn xëy na justice bi sant na léegi nag macha allah ñu ngi félicité bu baax mais mu mel bëgg a wax ngir wax rek est ce que loolu tamit waruñu ko passé jéem a xool suñu mais pas ñu bëgg a politique rek comme ni ko bëggaan defee daal def déclaré boo xam ne mhm. jàpp premier ministre koo xam kilifa la nga koy takk yenn mooy bëgg ñu jàpp pour nga am ci bës ak kuñ ñu jàpp politicien bu ñu jàpp ngeen ne dañ koy politiquer na am na est-ce mi defee noonu Sénégal dina avancé waaw xam nga euh, président Bougane bës ba mu ko amee daa yàgg ah maanaam day maye bës bëgg bës gi mën defee ay ay ay yooyu noonu yoo xam ne non maanaam maanaam yéen hmm. président Bougane dafa foor ci communication. dafa foor ci communication. ca fi mu toll nii. waa waa Pastef. ñoo koy defal communication toujours saa yu waxee rek. day wax lu am njariñ. lépp di njariñ. mu jël benn boo xamante ni dana bàyyi gars yi di ko challenge saa yu xëyee àdduna bépp di ko di ko di ko di bugaan bugaan bugaan bugaan bugaan bugaan di ko challenge loolu nag. maanaam nit ñi dañ nañ yeewu. soo xoolee discours boobu muy waxee noonu. daf caaw lu am njëriñ la ca wax wax lépp muy njëriñ. mu génne dara sànni leen. ñu ne ca loola di di kër kër kër kër kër. boroom xam-xamee nag ni dañ seete discours président Bougane bi. buñ ko seetee nag gis la cay dëgg. waaye FMI dañoo tontu keroog. bi président Bougane waxee. mais est-ce que ne ko loo xam ne kii ndax FMI après defaat nañ beneen beneen publication de. di di di soutenir bi fi nekk. gis na gisaan nañ beneen de. lu lu Ousmane Sonko waxoon. nee na FMI képp kum sant kum gërëm. Hmm. da nga sa da nga sa yaram daa war a da war a ngaa non yéen yéen yéen yéen man daal. <laughs> ban réew lañ nekk laa xamul man. <laughs> réew boo lool kon la ñuy loolu la ñuy bàkkoo ñoom. ah déet mais yéen da wax ne FMI léegi par FMI génnaat beneen beneen publication wax ne léegi ne faux compte la waxuñu ko après génn bu officiel boo xam ne boo demee page FMI bi manqué ko. waaye ba léegi nii de. Hmm. chiffre yéen waxoon. Hmm. lenn lu ca lu ca lu ca randu amu ci. ok benn benn lu ci lu ci ànd amu ca. maanaam président Bougane laa bëgg nga xam nga xam benn. Mm-hmm. nga jeexal ñu jeexale dafa am bës. ok wutul ci kenn bës. bu mm-hmm. kaso du ko may bës. Mm-hmm. daa yàgg am bës. maanaam gis naa sax ay oustaz foo oustaz yoo xamante ni. ku mel ni oustaz Assane Seck. moom président Bougane ko defar. di ko fay. muy dundal njabootam. ak njabootam di jàng. di def lépp ba génn tey di sànni président Bougane ay xeer maanaam kooku maanaam misaalum mbaam la yor mbam moy lo xamni mbam no no ah. ko rafetal tout wa may ma mbaam mooy koo loo koo nit dalay xont ba nga ba nga suur mu yóbbu ci ten ba wëgg la ba nga naan ba nga naan ba mandi so naane ba mandi nak la ngay la mbam may ñëk def moy wangeetu sani koy wéex ba paré def ko def ko affaire ma bañ tuddu ci ca loola sa san yoy lay la la yore mais def même bu nga am problème ak ay problème ñu ko daan liggéeyal ndax gis nañ ci ko ci melni yeneen ñoo xam ñu ci si réseaux di ko attaqué est ce que nga tamit ni ni muy doxalee ak liggéey kanam est-ce que wax dëgg ndax ku koo xool ku fa jógee rek après day wëbatiku sévère ci côté am est loolu tamit nekkul nekk na doxalin bu baax koo xam yow da liggéey nit boo bàyyee rek après commencé ko sànnee xeer. ah non gor moo jafe rek. ah gor moo jafe. mais gor ni nga ko ni nga ko téye rek est-ce que nekkul après bu ngeen tàqali ko si yow la. non non gor gor moo ndax ba ngi fay gis ay groupe média yoo xam nit dafay jógee am relation yu baax ak ak ak patron. waaw léegi ñaataa fa jógee nag. ba pare ba pare am ak moom relation yu rafet. man ñi ma si gis ñep dañ koy sànni. média ñi fa jaar dafa bari. man daal ñi ma gis ñep dañ koy sànni xeer. non yow ñi ñi nga xamante ni. ñoo ŋàbb seen i làmmiñ. ay nit nekk seen ginnaaw. ñi politique. ne ci ginnaaw ñu ay nit nekk seen ginnaaw di leen wax ñooñu nga dégg. muy benn muy Mansour Diop. ñaareel ba muy Oustaz Assane Seck moom. ak xale yu jigéen yooyu ngay wax. Ahmed Aïdara ak ni Ahmed Aïdara mu soo dig mu wax bu lu ñaw mais yeen sa mu tage leen de sànni leen brik non manam day politique. day politique. ok Ahmed dañ ko nungul loolu ñun hmm. kep kuy wax ci politique politique kase tax mm. farfarlu woo defoo dara yàlla rek a tax ngay def politique a tax ngay mm. wax ñun moom d'accord ak yow ci loolu mm. ndax président Bougane day sànni xeer ay nit moom itam day encaissé ok mu mel ne yéen daal yéen yéen waa Gëm sa Bopp rek ci ngeen concentré ku wax ngeen ngeen tontu ko loolu tamit est-ce que liñ leen avancé Cheikh Bara Ndiaye bu waxee ngeen ngeen tontu ko fee Euh, Mansour Diop bu génne loolu est-ce du leen tar damay gis même sa copain Cheikh Bouga communication lay communication communication lay def même yi ku génn ñu wax attaqué. la def. communication lay def ngeen defar yoon mais yéen daa Bouga na ngeen fi nekkal tamit. waaw d'accord su leen neexee sax ñu nekkal fi Bouga. wal fajiree nga ne nekkal fi Ousmane ah, Sonko déet sans limite euh, hmm. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen saa yi wax na ma léegi site internet euh, waa waa waa. kan ma la wax na xuma yooyu yooyu yooyu maanaam hmm. euh, su leen neexee ñoom ñu nekkal ko fi sax ok léegi ba xam ba xam lan la hmm. tey di bërki dem wàllu fajiri xëyu ñu hmm. liste ñoom président Bougane bi kay jiite ñu bind lu leer nañ wàl fa net ni ni liste ba dàq nañ euh, euh, nangam bat Barthélémy Dias mais ñoom am nañ émérité ñëw kiyaat ko waaw weddi weddi seen ba loolu kay loolu kay léegi nag ban ban presse lañ nekk presse boo xamante ni bii yow say source du leer du dëgër nga bëgg a taxaw ne yow yaay jàngal nit ñi euh, fan la réew mi jëm wala yaay jox nit ñi leçon morale am na solo lan ngay tàggoo bàyyi seen caaxaan lan ngay tàggoo li may tàggoo mooy ah. sant leen mm. gërëm leen mm. wax ni nañu àndandoo mm. coalition sàmm sa kàddu. saa yi wuy ci pré ñu ngi ñu ngi ci. non yow pré-campagne ok tënku la tënku ah, site internet. ah déet xam nga jamono ji moom dimbale ñu rek ngir yàlla. waaw d'accord naa ok <laughs> ngi waa dimbale xam nga li bañ mooy propagande daanaka. non man ñun ñoom suñuy propagande. nañuy propagande xam nañ ko. yéen moom am ngeen seen groupe presse bopp. bu ne ma ngeen faa dem propagande ba def nañ la def ba pare. ok jërëjëf ñu ngi ci liggéey ñu ngi leen di sant. ok di sant waa Touba di leen ñaanal yàlla dool leen mm. tawféex <laughs> di sant baax sama waa ji caméraman mm. Dieng Sala mm. ak sama taalibe bi Abdou Baaxe Dia Pastef <laughs> ñu ngi koy siyaar bu baax moom tamit sama xarit la waaye yàlla da koo natt ci Ousmane Sonko ndeysaan <laughs> yàlla na ko yàlla dolli tawféex lii mooy Sénégal lii mooy Sénégal mooy loo xamante ni bii benn bopp la mun ñu koo xar yàgg-yàgg lépp lu mën a xew nañu ànd ak xam ni am na lu ñu boole lu gën a dëgër politique bi. Hmm. am na lu ñuy boole lu gën a dëggal politiciens yi. Hmm. muy sëriñ bi. Hmm. muy Sénégal. te su ñu xamee ne Sénégal ñu ñu biite rek. mooy li nga dégg mu wax ko léegi. ay ñoom Diouf Lambaye. Diouf Lambaye waroon na maa waroon nga maa laaj ci ñoom wax ci moom. ndax moom daa wax lu baree baree bari. te fi mu nii maa yaakaar dëgg mu gëj a génn. non du ko tax a génn te sama goro la man sama sama soxna. bàyyi la ci bàyyi la ci Diouf Lambaye bàyyi la ci moom. macha allah sëñ Assane Mbacke moom. Euh, ni euh, nijaay ci ci ci ci ci ci moom. maanaam lii mooy Sénégal. lii mooy moom lañ bokk. Mm-hmm. ci ñu ko seddoo mm-hmm. bu yàgg yàgg daal man du ma ñun nañ fexe ba. bu ñu tudd ci kilifay yi mm-hmm. wax ci ñoom lu ñaaw. nañ waxtaan rek waxtaan wu rafet. waxtaan uh, lii li li politique indi rek. politique argument la. jeex na tàkk. jërëjëf jërëjëf moo tax tey tey tey moom ku ku saa di nga di ko mën a xam ne tey nekkul ndax boo rajo ak waxkat da lay suul <laughs> te sa waay alwaxaa la <laughs> ne la ba pare di politicien la moo tax boo rajo moom rek daanaka da lay nëbb lu bëri moo tax tey moom muyu ma dara noonu la garaawul xam naa du njort dinañ amaat yeneen plateau incha allah yoo xam ne dina gën a avancé te luñ gën campagne bi naa dina an liggéey ci campagne bi ngi ñëw incha allah boo xam ne bëgg nga def programme mooy moo xam muy communication wala ñu ànd ci terrain bu def boo jokkoo suñu commercial bi rek incha allah dinañ la teg ci code ñu leer ngay am sant ñëpp gërëm ñëpp sant comme ni nga ko waxee doyen Abdou Baaxe non man bee laay jël sant euh, euh, nu mu tuddati leer Dieng Saala TV <laughs> non léegi rek STV <laughs> maa ngi sant bu baax Camara DG Dieng eh, Saala ak Fallou VIP ak tout personnel bi nekk si DSTV ñëpp rendez-vous beneen émission jërë ngeen jëf TV ñoo ngi lay ñaan nga abonné nga bës ko la sa notification loolu mooy tax vidéo mu dugal rek nga mën cee jot leen fàtte aimer partager